daat nay xëy wax ne ak bureau bu yees boo xam ne danañu ko taxawala ngir mu traité dossier bi yéen kaay gi di la témoin nee na bu ñu waxante dëgg bi Biaye ak Mamadou Sall dinañu leen jox ab passeport boo xam ne moo leen di yóbbu ca kasu bu Rebeuss journal bi di Sud Quotidien nee na Mamadou Sall ak bi Biaye fii ak ñaar fukki fan wala fanweeri fan dinañu leen jébbal yoon yéen kaay gi nee na ñaari député yi nga xam ne ñoo bokk ci benn bokk yaakaar ñu leen di tudd ci ay tooxi doona ci ay giraawaali trafic passeport diplomatique ñoo nga dox wuti kasu bu Rebeuss yéen kaay gi di la Quotidien na ñaari député benn bokk yaakaar yi ñoo nga ca salle d'attente ba journal bi nee na en tout cas li am ba desale lii xeeñ ci seen mbir neexul yéen a kaay gi di Le Quotidien xëy na wax ci location bu cher bi nga xam ne moo am ci diiwaanu Ndakaaru journal bi li mu xëy di laaj mooy ndax état bu senegal du complice ak ñi nga xam ne ñooy bayeer yi ndax ñi moom seen i kër di ko luye jamono ji gis nañ ne lu leen neex la ñuy def te état bu senegal waxu leen lenn ci mbir mi yéen a kaay gi di Libération nee na Barça wala Barsax gi ba léegi ma ngi mel ni tulleeg màll ci réew mi ndax gendarmerie bu Kafountine teg na loxo lu toll ci téeméer ak juróom fukk ñoo xam ne dañoo bëggoon a jël gaal gi ngir dem ca diiwaanu Barcelona yéen kaay gi de la Soleil xëy na wax ci programme xëyu ndaw ñi muy programme boo xam ne état bu Sénégal moo ko teg lu jëm ci wàllum environnement am na lu toll si juróom benn junni yu fekk juróomi téeméer ci ay ndaw yoo xam ne daat nañu leen di recruter loolee journal bi de la Soleil moo xëy di ñu ko xibaar yéen kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fekk jiite woon réew mi ay jamono di maître Abdoulaye Wade moom nag dafa mel ni ku yërëma Alpha Condé mi nga xam ne moom la ñu coup génn ca diwaanu Guinée Conakry ndax Abdoulaye Wade moom nag bëgg da seetaan Alpha Condé di wéy di amee jafe-jafe nee na ko Alpha Condé sama kër gi nekk ci Ndakaaru ci corniche bi maanaam soo fa bëggee dem rek man nga faa dem daal di fay toog man faa xalal sa ëllëg yéen kaay gi di enquête xëy di ñu xibaara naan ñu girawale a njombe yi nga xam ne mooy faral di am ci réew mi giraawal yu rëy le doona waaye nag bu nu fa jugee fàttali lépp ndax bëri na ay njombe yoo xam ne ay bakkan yu baree bare moo fay rota waaye nag Sénégal yi nga xam ne moo si mujj ca diwaanu Hann Bel-Air foofe nag am taax moo xam ne genn wàll gaa daanu am lu toll si juróom benn ñoo xam ne faatu nañu fa ba léegi nii gars yi lijjantee guñ ko te bi di enquête nee na léegi tey gars yi fàtte ko kaay gii di Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu sa diwaanu Linguère foofe nag musiba ma ba kumba gu rëy moo fa am ndax ay sàmmukat yoo xam ne ñoo fa doon jàppante ñoo fa doon xeex am na kenn koo xam ne ñàkk na fa kanam am na ñoo xam ne am nañu si ay gaañu gaañu mag nga xewe sa Linguère ca arrondissement Sagata Jolof yéene kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk kuréel gi di COSYDEP mu ëmb yoo xam ne dañuy xeexal école yi ñoom nag def nañu ab xayma nee nañu téeméer boo jël ci école privée yi juróom yi yëpp autorisé wuñ leen ngir nag ñu daal di koy ubbi journal bi di Vox Populi ñoom waa COSYDEP nee nañu nag école privée yi jamono ji ma ngi mel ni tulleeg màll ci réew mi ndax nag si atum 2010 jàpp atum 2020 téeméer boo jël juróom fukki école privée yëpp ñoo ngi ko tabax ci diggante 2010 ak 2020 yéen a kaay gii di L'As xëy duñu xibaar naan ñu comité de suivi force covid nga xam ne moom lañ fi tegoon njiitu réew mi di président Macky Sall daan na ko fii jëlee journal bi nee na la ko waral mooy seenu mission moo jeex yéen a kaay gi di source nee na transhumance bi ma ngi mel ni tulleeg màlle ci réew mi waaye nag parti bi di PDS ñoom ñoo si gën a loro ndax PDS élection locale yi nga xam ne moom la ñu génnoon amoon nañu lu toll ci téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ci ay maire waaye nag ña sa ëpp ñëpp dem nañu fekki pouvoir bi yéen a gi di Dakar Times daan na xëy ci violence sexuelle yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci église catholique bu France diggante 1950 ba 2020 yéen a kaay gi nee na xayma bi nga xam ne ab rapport commission indépendante wane na ko ci violence sexuelle yi maanaam jégg na dayoo ndax lu toll ci 330 mineurs yoo xam ne agressé nañ leen sexuellement diggante 1950 ak 2020 yéen a kaay gi di esat wax ci match bi nga xam ne moo war a dox diggante Sénégal ak Namibie yéen a kaay gi nee na ni ki démb am na lu toll ci ñaar fukk ak ñaar ci ay gaynde yoo xam ne doon nañu cokki-cokki maanaam doon nañu entraînement yéen a kaay gi di esat xëy dañu xibaar naan ñu Bouna Sarr ak